combat bu neex taxaw démb war a dox ci diggante Sa Thiès ak Reug Reug combat la bu nga xamante ne comme ni ko Ebba Kane waxee rek mooy meilleur combat de l'année 2023 Sa Thiès Reug Reug xam nga leen bu baax a baax Gaston taxawal na ko démb dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp di la baalu àq nag ci koor gi bàyyi la tamit nga baalu àq ñi nga xamante ne ñu ñàkk ni juum nga ba tooñ leen wala ñuy juum ba tooñ la nga baalale leen maa ngi nuyu bu baax a baax di la ziar. waaw ngi lay fay. di nuyu bila la vraiment famille Lutte TV yëpp euh, di nuyu monde làmb ah di nuyu jaspora bi comme ni ma koy waxee saa su nekk ñi nga xam ne tey euh, nekkuñu ci réew mi mais dara actualité seen actualité dëkk dara réeru leen donc ñu ngi ci di jàpp ci liggéey bi di nuyu jaspora sénégalais bi yëpp fu nit mën a nekk di profité ci wóor koor bi di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq Euh, di ñaan yàlla ñëpp am kooru jàmm di ñaan yàlla réew mi euh, jàmm am fi di ñaan yàlla aussi làmb ji aussi comme ni nga koy waxee rek ala dawme ah takarnaa si comme ni nga ko xamee woon deux 2006 ah 2007 2008 ba 2012 ah saison yu mel noonu tamit amateurs yi soxlawaat nañ ko di ñaan yàlla tamit saison yu mel noonu ñëwaat te boo xoolee commencé na sax parce que làmb euh, avant Covid bi neexoon na ba période bi Covid bi ñëwee. ci la làmb xawa a manqué manqué vitesse mais gis nañ ni boobu ba léegi vraiment am na ay combat yu am solo yu intéressant yoo xam ne tey euh, waxuma la sax meilleur combat de l'année mais mun na changer tey euh, structure làmb nu mu demee parce que tey boo xoolee depuis dix ans 15 ans euh, benn 6 7 mbër rek ñoo fi nekk di bëri seen biir dafa mel ni xaalisu làmb yëpp ñoo ñoo koy bëre te boo gisee làmb euh, ginnaawam dafa yaatu euh, jeunes yi si nekk tey ñi nga xam ne tey ñoo gën a sonn ci làmb te nit ñi xamaguñ leen ñi ngi fi tey nag lii da ciy baax genre combat yu mel nii da ciy baax parce que VIP yi group boobu foog mu tas groupe VIP yi foog mu tas léegi nag xale yu mel ni Sa Thiès ñii ak Reug Reug combat yu mel nii nga xam ne tey bu ñu doon wax bu njëkk combat spécial la. Mhm. combat la boo xam ne ñoom ñaar dañoo daje ci benn buntu mooy buntu VIP yi mhm. ku nekk taxaw tey poignet mhm. xamuñu nag kan mooy dugg mais tey Gaston yàlla dimbali na ko mu matérialiser combat bi mu nekk combat boo xam ne amateurs yi dañ koy yàgg xaar sénégalais yi dañ ko bëgg parce que tamit euh, nekk fi benn groupe VIP. booy yi nekk fi rek boobu léegi di stagné dugguñu hmm. tey combat bi nag mooy forcer la main les VIP parce que ku daan par force da ngay dugg ci biir VIP yi. ok dama bëgg xam comme ñoom ñaar lan moo leen boole. combat bu ñor la wala xaalis moo tax combat boobu. làmb moo leen boole. combat bi combat làmb la boo xam ne tey ni ñu ko waxee làmb moo dox ba boole leen tey ñoom ñaar tey ku ci xool Sa tey carrière am ni mu déparé tey mënoon nañ ne wax ni tey Sa tey bu nekkoon ci normalement ah combat yi mu ñàkk mu gañe ko tey mun nañu wax ni tey du bëreeg rëg-rëg mm-hmm. tey mun naa wax ni tamit rëg-rëg fi mu nekk nii dafa prouver mm-hmm. dafa ñëw am lu mu wane ci làmb wane ko ci bëre simple wane ko ci làmb ba di ko wane ci MMA tey mu nekk valeur sûre boo xam ne tey làmb tey ñëpp ñi ngi séentu ci moom roi des arènes mm-hmm. tey depuis dans deux ans trois ans ci ginnaaw ñu ngi ko doon séntu ci Sa Thiès bu muy door a ñëw ci làmb di def euh, vraiment feuille flamme ñu ngi doon séntu vraiment allure roi des arènes léegi allure boobu nag moo wàññeeku vraiment ci at yi ñu génn Reug Reug tamit ci at yi ñu génn mu def ay ay performance yu énorme tey nag làmb tey ñu gis ni ñaari mbër lañ yoo xam ne ñoom ñaar ñëpp dañu bëgg a bëreeg Bombardier bëgg a bëreeg tey ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci ginnaaw ku xool rëg Reug xamoon ne amoon na yéen bari at bombardier tey gis nañ keroog làmbaja ja ah Sa Thiès gàddu ndëndëm def ni mbër di def vraiment mu yëngal sama yaram trop ma kontaan ci parce que mbër noonu lañ daa def mbër da ngay wane sa bopp mbër foog ngay jaay sa bopp ci bés yu mel wax li nga bëgg waaw joxañ fi nga bëgg ba pare jëm fa tey keroog Sa dafa def loolu vraiment deretu mbër yëpp yëngu këf sabar bi daw dëkk mbër yi ñii naan lii du yoon ñii naan la man leen dafa def yëfu mbër tey loolu mu def noonu moo taxawal kombaam ak Reug Reug parce que tey parce que tey ku xool tey euh, Sa Thiès Reug Reug yàgg nañ ko wax dañuy bëli bisiti rek mbëri ku nekk toog sa coin ku nekk di sànni xeer mais keroog geste boobu Sa Thiès des dafa décanter situation bi parce que tey ñëw na dëkk Bombardier dëkk Eumeu Sène mais tey euh, yoon la champion la ah. xam na ni tey fi mu nekk yàgg na fa Sa Thiès dafa yàgg taxaw fi mu taxaw foog mu avancé tey nag pour mu avancé foog mu foog mu daan rëg-rëg tey bu daanee rëg-rëg tey VIP bi bombardier du ko bañ Eumeu seen du ko bañ ñi daan ay magam duñ ko bañ tey mun na dugg furlil magam tey ñi nga xam ne daan nañ ay magam mu daan leen dafa war a taxaw fu bala gay taxaw parce que àdduna noonu la àdduna day dox bala gay dugg na fa def na li mu war a def amatul lu muy prouver ci làmb parce que Balla gay à bas âge daan na ay moromam daan ay magam daan ñi fi nekk ba jël roi des tey amatul lu muy prouver ci làmb mooy tey Balla Gaye day gérer carrière pour pour pour vraiment euh, terminer en beauté tey terminer en beauté tey nag Sa tey am na opportunité wu fa magam nekkoon fa magam nekkoon ah fa magan bi yemoon mu def ko ba pare def la def la ko war ba pare am na chance su jëlal revanche ay ma ay euh, jëlal jëlal maga ay ay revanche magam. tey ku daan ku daan Balla rek Sa Thiès la war a daan. war na la mën a daan parce que loolu tamit mooy àdduna tey man bu ñu bokkee ndeeg ak ma jiitu la ci làmb ba pare nga may sa référence ci làmb ñi ma daan ci làmb tey say cible la ñu war a doon tey noonu la demee rëg-rëg nag dafa nekk koo xam ne tey boo ba léegi mi ngi fi te boo xoolee euh, ñetti combat yi mu mujjee bëre tey mu ku mën a xool xam ni tey rëg-rëg tey war na mën a bëre poids lourd parce que ku daan ku daan euh, Jordan daan Elton daan daan Elton daan Gris 2 te daan Bébé Saloum vraiment ah sawaay kooku moom mënuñu la wax ni mënuñu la wax ni bokkoo ci VIP yi yaa ngi ci VIP yi léegi nag combat bi moo koy confirmer bi ko defee nag tey amatul benn mbër bu mag bu naan duma ma bëreeg diw wala duma ma bëreeg diw. ok léegi combat bi taxaw na mu war a nekk dans onze mois parce que février 2023 lay nga soxna ci la koy tëgg nan lañu war a entamer première phase d'entraînement. waaw parce que combat bi moom combat bu spécial la parce que ñaari mbër yi ñoo ni mel parce que seen bëre yi bokkul seen yoon bokkul. Euh, kenn ki bëre bu gaaw lay bëre kenn ki bëre bu wóor lay bëre donc nag ñoom ñaar ku ci nekk sa entraînement dafa war a spécial par rapport ak yeneen combat yi nga doon entraîné tey ñoom ñaar ku ci nekk tey waroo ñëw ba ci làmb ji di làmbatu tey projet bu wóor parce que ñaari mbër lañ yoo xam ne tey naa la wax dara ay mbër kaamin lañ ay xale lañ yoo xam ne tamit làmb la làmb da leen bàyyi xel làmb da leen bàyyi xel bu baax a baax a baax te tey combat bi ñoom ñaar kenn waru ko ñàkk ci ñoom ñaar parce que opportunité yi taxaw seen kanam la kenn wara ko ñàkk moo tax tey ñoom ñaar kenn warul ñëw ci làmb ji di làmbatu ah, donc da préparation bu wóor la war a doon te tey li ñuy wax ni tey ñoom ñaar bu ñuy wax ci doole ñoo tolloo doole ñoo tolloo doole li ci gën a wóor nag mooy ku ci gën a baax coffre ku ci gën a baax contact gën la mën a tenir combat bi tey mun naa la wax ni moo ci ëpp chance mais amul kenn ku war a ñëw ci làmb ji ci ñoom ñaar di làmbaatu wala di tatone kon ñoom ñaar kenn mënul jaay kenn doole parce que ñoom ñaar ñëpp dañoo am doole ñoom ñaar ñëpp dañoo am doole. Hmm. ëppante doole bi nag mooy ci biir combat ba. ku ëppante condition ku ëpp condition gën a mën a résister ay action am gën a gaaw. Hmm. yàlla mun na la may chance. Hmm. ci côté rapidité nan nga leen gisee ñoom ñaar kenn nga gis ni moo gën a vif. waaw ku xool ñoom ñaar Sa Thiès ku ko xool xam ni bëre bu gaaw lay bëre. moom rapidité dafa nekk ci moom boo xoolee façon bi muy bëree lépp bu rapidité la ak intelligence en mouvement parce que boo xoolee di bëree euh, daw songu enchaîné jargandiku tout ça loolu yëpp rapidité la tey rëg-rëg nag dafa nekk mbër boo xam ne bëre bu wóor lay bëre bërewul parax-parax bërewul dara day jàpp ba mu leer mu liggéey li muy war a liggéey tey nag rëg-rëg li ko arrangé mooy tey mu am adversaire yoo xam ne dañu gaaw muy préparer ak nit yi nga xam tey dañu gaaw te li muy liggéey mu gaaw Sa Thiès nag moo li ko arrangé mooy di contact ak ñu diis te mën a bëre. di contact ñu diis te mën a bëre parce que rëg-rëg tey boo ko xoolee ni mu toll noonu dooleem ëpp na ko noonu tey boo xoolee ñoom ñaar ci taxawaay neexoon nañu doole mais boo xoolee kenn ki ci biir day ëppee doole parce que boo xoolee rëg-rëg diis na diis boo xam ne tey boo xoolee euh, damay jël référence rek par rapport ak combat bi mu mujj forme bi mu indi noonu vraiment pour nga manœuvrer ko ci taf du du yomb donc combat la boo xam ne ñoom ñaar foog ñu am ci entraînement bu spécial boo xam ne tey tey ku ci nekk da ngay am sa projet. Mm. tey ñaari mbër waa dañooy bëre ñaari mbër yoo xam ne xale lañu espoir lañu mais ñaari mbër yoo xam ne tey mun naa wax ni tey fu ñuy xool champion yu mag yi fa lañ leen di xool. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu am na solo mais Reug Reug comme ni nga waxee sànq ñëpp seetlu nañu ne darañu ko maam dafa andi poids muy digganteem ak ak ak ak guy gi mm. est-ce que buy bëreeg Sa Thiès ni nga ko waxee Sa Thiès mbër bu gaaw la day bëree arbitre day dal sa kaw. Mm-hmm. action sur action lay def est-ce que Reug Reug jot na combat boobu noonu mu jël ci poids est-ce que war na. waa en tout cas bu bu ci bu ciy jël poids tamit poids bu mu ci mën a jël na ànd ak na ànd ak mobilité na moom boppam ah poids boo mënta jël na nga moom sa bopp am am ànd ak mobilité ba pare am coffre tey am cardio bu wóor poids boo mënti am te sa cardio antanu ko rek dalay sonal mais boo amee poids bu wóor poids bu wóor mu ànd ak mobilité ànd ak cardio bu dëgër. vraiment war na ko mën a bëree. a bëree. Mhm. kon bañu mu indi 130 kilos wala 135 kilos. waaw bañu ma ñoom ñaar kenn indi ci poids bu bu bu bëri mais li ma ciy wax mooy poids boo xam ne day ànd ak physique poids boo xam ne ànd ak mobilité day ànd ak cardio mun nga am poids mais poids bu normal lay doon poids boo xam ne poids la poids la boo xam ne da ngay jël muscle doo jël graisse mhm. dangay jël muscle ba pare sa cardio day baax dangay ngay mën a daw ay 100 mètres da ngay mën a bëri une heure mhm. parce que làmb ji. tey arène nationale bi day naxee tey ku ci gis arène nationale bi noonu mu plat tey mbër mu ci dugg boo bëree boo bëree une minute deux minutes day mel ni trente minutes nga bëree kon tey ku ci amul cardio bu baax pois boo mënta indi da sa xol baaxul wala saay da ngay sonn ci làmb ji après combat bi soof mooy loolu te ñaari mbër yi xalaatuma lool dina leen dal. Mm-hmm. xalaatoo ne ñaari mbër yi loolu da leen dal. ok bëre ci kan nga ko gën a ci ñoom ñaar ñëpp. ci ñoom ñaar ñëpp parce que xeetu bëre yi ñuy bëre bokkul kii bëre làmb lay bëre kii bëre mbapat lay bëre kii benn benn lay bëre kii day day bëre action sur action donc ñoom ñaar ñëpp xeetu bëre yor yor nañ ay xeetu bëre lu pure mais daa bokkul bii daa gën a wóor bii daa gën a gaaw. Mhm. moo ci gën a am combat ñoom ñaar. ñëpp am combat. mais nag dana am ci gën a Sa Thiès moo ci gën a am combat. parce que euh, tey. mbër boo xam ne kenn mosu ko daan tey booy bëreek moom tey boo ko daanee exploit la tey bu Sa Thiès daan rëg-rëg exploit bu rëy lay doon parce que tey rëg-rëg ba léegi nii kenn daanu ko te mi ngi commencé jaaxal waa làmb ji tey Sa xale bu mel ni Sa bu ko daanee du ñu jaaxal dañ naan mun na ko war na ko mën a daan mais tamit exploit bu rëy lay doon. Mm-hmm. Mm-hmm. mais mais nga ne mën na ko daan. rëg-rëg na ko daan. comme Sa mun na ko daan ñoom ñaar ku nekk mun nga daan sa morom loolu moo tax combat bi intéressant kan combat bi amul favori bu dee ci ancienneté euh, euh, euh, Sa Thiès mooy favori bu dee nag ci normal normal côté làmb amul favori mm-hmm. waaw lamb moo leen boole seen combat dafa ñor taxaw